négligence médicale wala sax ñàkk fulaal ci yenn bërëbu fajukaay yi ñu koy nemmeeku ci réewum senegal léeg-léeg sax ay jafe-jafe yoo xam ne daf koy faral di indi file ci dëkk bi sell bii di Touba askan wi fi yeewoo ñoom itam di jàmbat lu ni mel. hôpital Touba yi yëpp boo fi dem daanaka weer naqaru ngay am tenante nañ tuuti nag loolu nag damaa xamul waa Touba lañ ko jagleel damaa xamul dañoo xam waa Touba xamuñ seen i droit damaa xamul sëriñ ci ñoo war a wax sa waxuñu ndax waa Touba sëriñ ci la déglu loolu moom ne am naa ko te ñu ma dëkkal ñu bëree bëri am nañ ko. vraiment man dunduma ko parce que hôpital yi li ma ci faral dem bëriwul suñu borom moom ma dimbali ci loolu ma ci sant baaxit nag waaye nag de toute façon am na ñu koy dund parce que rumeur moom bu xasee dugg ci biirum àddina bi ñu koy waxtaanee waxtaan réew rek c'est parce que dafa nekk. waaye nag ku ko defit def lu doy waar lool parce que muy métier bu mu mën a doon rawatina wàllum sante moom nga xam ne moom boo wérul amul lenn loo mën a def ci kaw suuf mu jariñ la. kon bu fekkee ne jël nga say engagement jàng ba pare waat ne damaa bëgg a jël pour représenter askan wi leneen loo def lu taxaw leen rek doonatul lu rafet. bii bi moom andi benn ci histoire yoo xam ne jot na ko ci yooyale jafe-jafe ci bërëbu fajukaay yi. damaa dem hôpital ñaari yoon yoo xam si nii benn yóbbu naa fa gone benn yóbbu fa jigéen gu mat gu wéradi kuy matu camp bi ñu naan camp gendarmerie bi yóbbu naa fa gone gu am si nii làmmiñ dafa daggoon huit heures si guddi jamono ji yàlla si couvre bi rek bu ñu ñu ne médecin bi day nelaw. xam na lañ obligé waat indiwaat gone gi si kër gi bi ñëwee si kër gi ma toog toog mënu ma kaa muñ ma àbbu oto yóbbu ko si kaa kii poste santé bi nekk kër sëñ Bas ci lañ ko doog a dañ kaa ñaw xam nga loolu mel ne kaa gendarmerie damaa foog ni guddeeg bëccëg war nañ kaa mën a liggéey. bëggoon nag di ko dénkaat muy askan wi nga xam ne dañoo tawat di dem ak ñi nga xam ne ñoom lañ fay fekk ñu xalaataat ne ñoom ñoo bokk kër yi ñoo fay daje ñoo bokkaat réew mi aussi ñoo bokk lépp loo xam ne moo fi nekk ci wàllu société bi kon joxante cër ak jàppalante yërëmante ku ko def sa bopp nga ko defal waaw lii moom doon na idée boo xam ne moom dina ko dénk ñoo xam ne ñoo bi day nelaw xam nga ñun mënuñu egg fenn fu dul gardien comme gardien bu la baaree na la médecin bi mu beneen pexe bu dul ñibbiwaat sa kër ñeneen ñi des itam jàpp ne ñaaw na lool rawati nag ñi nga xam ne ñooy dem ci yooyu la bërëb te yóbbaale bëggoon nag di ko dénkaat muy askan wi nga xam ne dañoo tawat di dem ak ñi nga xam ne ñoom lañ fay fekk ñu xalaataat ne ñoom ñoo bokk kër yi ñoo fay daje ñoo bokkaa réew mi aussi ñoo bokk lépp loo xam ne moo fi nekk ci wàllu société bi kon joxante cër ak jàppalante yërëmante ku ko def sa bopp nga ko defal waaw lii moom doonoon na idée boo xam ne moom dinaa ko dénk ñoo xam ne ñoo wàllu boo xoolee si hôpital bi donc sax du dem ba si boo demee si banque yi da nga ko gis boo demee si yeneen bureau yi da nga gis xam jànkor tubaab moo joxul respect doomu aadama damaa xamul bu toogee si place bi la ko waroon moom la fàtte damaa xamul loolu lu ko waral waaye loolu daal naqar naqar wi moom yaatu na. ñàkk fulaal gi ñu nemmeeku ci yenn ci ay bërëbu fajukaay yi soxna yi itam mucc ñu ci loolee. loolu moom du yoon moom sage-femme tamit a def tamit ñëw met xol bu jeex la d'après nga ñëwaat ñu def yéene léegi dana xëy sa xol loolu moom du faj loolu moom maa ngi koy ñaawlu. man musuma dal comme ni ma la ko waxee noonu musuma dal moom. damay bi ndaxte euh, la vingt 28 laay amee laa daan accouché hôpital bi ñu naan 28 ñooñu dañ euh, dañ ma daan may yitte dama faa xam ñu bari daal dañ ma daan may aaju mais damay gis sama yeneen moromu jigéen ñi ñu ciy toog di waxtaanee. naan hôpital yi boo demee duñ la faale. ñoom nag jamono ji li ñuy sàkku moo di ñi nga xam ne rek ñooy damal jëf yu ni mel ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne rek mooy góogale ak anam waaye tamit di ñaax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di kilifa yi yëngu ci fànna fànn gee itam ñu gën a ñaax seeni ndaw ba ñu gën a mën a dalalaat ñoo di way tawet yi ci bu fajukaay yi. saafara si mooy defaraat jikko yi mbir mi ci éducation de base bi la départ ba pare jëlaat nag suñu responsabilité ci bi nga xamee ne maanaam ay ay nit lañ di jàng xam li ñu war ñu di ko jëfe suñu diggante suñu nawle yi waaw nañu yaru ci biir kër yi yar jikko yi mais respecté doomu aadama ci mbedd mais li nga xam ne tamit yàllaa ko dénk xam ne ko dénk muy xam-xam ñu delloo ci yàlla cëram delloo yàlla cëram nag moom gisuñu yàlla directement mais ci askan wi rek lañ ko mën a defee ñu def maladie comme il faut di leen toppatoo ni mu ware man loolu laa gis su ma sañoon ñu dimbala ñu ci ci xam ne ñoom kat ay doomu aadama kese lañ njàng mi amit ñeneen am na njàng mu ko sut xañ na place boobu yàlla moo leen ko jegleel kon buñ ko toogee war nañoo jéem a sàmmante li nga xam si ni diggée nañ ni moom lañ war a def ndax borom place bi magasin bi bi jaay day respecté ak njaayam ndax bénéfice ba mu si am moom dañ koy fay weer kii ñëw fayu ko weer fayu ko weer waaye waaye dañ kaa war fay weer moom it la muy fay ordonnance ba muy fay ak la muy la muy fay sa bunt kii ba moom ci lañ koy fay waaye bu mu gisee ni moom itam kii fayu ko rek nu ko neex lay dundee moom loolu man pour man loolu loolu mooy mooy nekk seen bopp ba tax duñ respecté doomu yi te te ñu xam ni kooku moo leen di fay ndax 1000 francs ya muy dagg ak 5000 ba muy dagg ci lañ koy fay loolu war na war dellu seen xel seen xel bu baax ba ñu mën a toppatoo doomu aadama yi. ku koy def moom ku nekk vraiment war nga mën a seetaat sa bopp baax a baax avant kenn di la yedd ndax benn war nga sam réew avant tout parce que ku war saw askan rek war nga sam réew te nit ki bu fekkente ne dafa tawat ñu ne ko lii mooy sa yaakaar mu jël addinaam yëpp wékk ko ci jëm ci yow lay sa wartu sa wartu sa diggante moom mooy wax dëgg yàlla xool na nga xam ne moom ngay comporté moom surtout d' abord comportement bu extraordinaire nga war a def ak moom ndax ki tawat moom ki dalal xelam mooy comportement bi bi am solo bi nga koy jox mais par rapport ak sax paj mi. parce que nit ki mën nga koy faj sax mais jox ko comportement boo xam ne maanaam bokkut ak bi nga xam ne nii maanaam mooy dalal xelam te nit bu xelam dal lu wéram doonte nekk.